sama yaay jee sama yaay di gisuma ku ma lay mën a weccee yow mi gën ci man yow yaay booy sama gàlla yaay ja gaaw te gën bu ma la doon laajte ji ne la njëriñu financement yi nga xam ne yaa ngi koy jël ci biir yaay ja agro waaw financement yi njëriñ li ma apporté bëri mhm. vraiment boo daan dugal réem ataay ma sa biir kër mm-hmm. te mënoo koo yóbbu sa kër yaay mm-hmm. bëgg a def sa kër def sa kër yaay dafa metti mm-hmm. te mënoo lekk bàyyi yaay mënoo lekk bàyyi bàyyi toujours boo amee dara sax dugal ko sa kër yaa ngi xalaat sa famille sa gannaaw te tey boo ñëwee kër yaay jàll agro na tey boo doon def benn ravitaillement ci kër cent cinquante mille bu la neexee nga xaaj ko soixante quinze mille soo yóbboo ci njaboot gu sew gi lee li ci des nga yóbbu sa biir kër li ngay gis ci xeetu partagé mooy dafa dimbali njaboot yu bari ndax addina toll na foo xam ne kenn xeebalatul kenn lu ma bu yàlla dogalee tey nga ñëw kër yaay jaal agro da am tere mm. cent mille francs ci kër gu ndaw soo ñëwee tey am nga famille bu nekk sa gannaaw yàgg nga leen a xalaat mm. te cent mille mënu la woon lijjanti mënu leen a lijjanti sa mm. préféré nga bàyyi leen gannaaw nekk si sa bopp wala nga jox sa bopp nga jox leen ñoom xañ sa bopp léegi di ko xaaj ñaari parti boo dugalee fii saako ceeb ak diwlin di dugal fii saako ceeb ak diwlin kon la na fekk fu dara newul mu def fa dara na fekk lu metti mu seral ko ba mu sedd tey boo ñëwee kër yaay jaal agro tey hmm. nga daan xool sa borom kër tey mu leer na leen kii yore na bitik bitik bi avancé wul woon boo ñëwee tey indi ko kër yaay jaal agro dana sarse bitik am mu fees dimbale nga borom kër gi hmm. yaa ngi dégg mu leer na la ne tey ku jigéen kii yàgg naa yor taabal taabal ji sooxe hmm. bu ñëwee kër yaay jaal agro loolu jeex na dund bi ci kër gi moom waxaale wu ma boo demee ba nga xam ne chambre à coucher jigéen du nekk tey boo sañoon boo xoolee sa biir nekk wala nga tëdd hmm. lu la neex ngay dund te du fu sedd te du fu nooy hmm. yaa ngi dégg tëdd ci lu rafet ngay seetu di seen sa bopp di dégg fii nga koy amee kër yaa jàll am kon ñii maanaam jëlee nañu askan wi ci fu fu fu doy waar hmm. mais yóbbu nañ leen fu mucc ay loolu yëpp nag ak cant rek lañ koy def grâce à madame Guèye. di Mamadou Guèye di borom kër directeur des domaines tey jii bu doon laaj ci diggante boobu muy diggante monsieur le maire ak diggante ki xam ne mooy madame Guèye directeur su yaay jaadu lan nga ñu mën a wax ci seen diggante ak lan ngay xaar ci ñoom dëgg-dëgg ñu yegg ko pour yéen satisfaction à 100 pour ko am tey ci kaw dama naan yàlla dafa fayee Modou Guèye ay jëfam muy da ko fayee Fatou Faye muy tey la mu daan def ci askan bi te ba mu mënul dara Modou duggee daan sonn di fekk fu dara newul mu def fa dara Modou Gueye daan sonn ci askanu Caaroy ji kaw ma dëkk fii CFA sëy fii Lansar daan ko gis ndox mi di inondé fii ba ñetti mbaar ba gunaas mu jël ay moto pontam pompam di ko may askan bi fekk kër goo xamante day lëndëm kër si mu dugg fa joxe fa lu duun kër ga leer tey loolu la ko yàlla fayee soxnaam si ndax gis booy def lu baax da jàpp ne rek yaa ngi ci xamoo kañ lay doon ak fan la hmm. mais bu lay alay fay da lay fayee loo xam ne yow mel yow mi ko fayee sax da lay yàlla tax loolu ndax leer na ma ne moo dina toog hmm. mu xalaat man yàlla ji may indil fàttal nii lu waral li ndax wala ay jëfi gannaawoo nit ñi fàtte wuñ ko am ah. fii bu ñuy gërëm Pape Faye dañuy gërëm Modou Gueye hmm. Modou Gueye dafa commencé caare ji dakal amul dara takkul dara ñuy taf fii ay affiche am naan Modou Gueye Modou Gueye ba tey yàlla dogal tey jii mu jël mairie Thiaroye ji dëkkaw dëkk doomu dëkk bi yëpp jàppale ko hmm. mu gañe tey fii yàlla jox ko tey madame Guèye madame Guèye ñëw ni ko góor nga nekk jàmbaar waaye jigéen di jàmbaaree ni damay ñëw nekk ci sa loo def ci askan benn ma def ci loolu mooy seen diggante ñu hmm. am ci yaakaar ni nag hmm. diggante ba boo xamante ni la du jeex du mas a jeex ba ñu doon ay maam ba àjjana ndax li tax du jeex dañoo méngooy jikko dañu mhm. ñu méngooy jikko mooy kii dafa yéene woon daan def kii ñëw ne ko maa la dàq def te góor loolu rek la soxla jigéen du dul yàq mhm. jigéen di koy rëb ki koy dimbali ci askanam mhm. ki koy jàppal loolu yëpp bu yàlla dogalee tey mu yem ci ku toll ni Fatou Faye muy def lu toll nii ci digg dëkk bi ñun am nañu yaakaar ne Modou Gueye ëllëg si bi président Macky Sall moo naan ko chaise bii ma toog yow méritoon ko nga toog kon ñu ngi sant yàlla ci loolu bu baax. kon tey ban message nga leen a mën a motivé waat ñu ñu a gën a gën a gëm seen bopp te doon waat seen bopp tam ci ci ci. waaw message bi chaque jour ma jàllale ko. doon jàllale waat bu gën a. ndax dama naan suñu demee ba nga xam ne ñun ñi nga xam ne tay ñun ñoo war a jàllale message su madame Deli. Mm-hmm. ñun suñu rôle bi njëkk mooy fii ci biir Kër Yaay Diall ak rôle. mooy jàllale message su madame Gueye ci liggéeyam bu rafet ci biir réew mi ñaareel bi mooy ñuy ñaax suñu mbokku jigéen lépp ndax ku nekk xam na ni ñuy ñaax suñu mbokku jigéen yëpp ku nekk xam na ni lii ñu ñu defal kenn ku ko yàq-yàq ñëpp yàq bi nag mënut a paase nit dem liggéey bitim réew alalam ñëw sonn ko alalam ni mu saxee ci xol nga ñëw attan na fa peuple bu toll nii. Hmm. ah nga ni quatorze régions yi ci Sénégal yëpp jël naa ko international laa koy def damay ñëw foofu sama doole dox leen ko ba mu jeex tàkk pour ngeen di ci tedd di ci jaariñu su hmm. nu mu gën a woyof ngalawaay bu ko kenn yàq nañu góorgóorlu di fay hmm. bëccëg yomb na yombul waaye volonté moo la koy may ak na nangoo liggéey bu ñu la joxee tey bu ëcc bëccëg jotee nga yaakaar ni doo def na mati jaay mii toog dem si sa taabal ñafe fa boo toogee tey naan attaay bu subaa nga naan attaay bu hmm. gannaaw subaa nga digal madame Diop bu la xaadim woowee tey woowaat la suba woowaat la gannaaw suba hmm. su ko ñetti nit defee boobaa ñi sa gannaaw hmm. di leen toroxal te nii nag nun dañ ko foye ñun madame Gueye lii mu teg nii daf noo jaral lu ne ndax li mu tax mu jaral ñu ko danoo fekk fa dara newul mu defal ñu fa dara ñu yàgg ci développement fu ne dem nañ fa lu ne ñu dugg ci te dara sottiwul ñu ñuy dig di ñu mobiliser di ñu sandis di ñu xartum loo bañ a dagg te dara sottiwul moom mu ñëw ne man def la ma leen dara liggéey leen ngeen ñëw fay waaw comme na jigéen ñi di fay mm-hmm. nañ jàppale ngir jëmmi rasulullaay ku fi jël dara nga fay ko bañ ñu wala nga xam ne say nawle nga ko séq message boobu rek laa leen di jox comme ni ma koy joxee sama bopp di gërëm ñëpp di sant ñëpp di kontaan